أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ànd ak yéen ci téere bii di Bulugh al-Maram ñu toll ba tey ci baabul aaniya mooy buntu ndab waxoon nañ ci njëlbeen ne ndab moom mooy lépp loo xam ne mun naa ëmb ndox moo xam weñ la wala kawsu la wala bant la wala der la wala wala wala tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël àtte der xadiisu ibnu abbas bi nga xam ne muslim moo ko génnee ak xadiisu salama ak xadiisu maymuna ak buñ demee ci al imma al arbaa dinañ fa fekk tamit benn riwaaya bu mel noonu kon bu nu càmbaree li ñuy jël tey ci ay xadiis dana nekk ñeenti xadiis yoo xam ne dana ñu jàngal der lan mooy àtteem ci lislaam xadis bu njëkk bi muy xadisu ibnu abbas radiyallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida dubiga al ihaabu faqad tahura axrajahu muslim xadiis ibnu abbas muy xadiis bu njëkk ci bunt bi ibnu abbas nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su fekkente ne wulli nañ der laab na mu ne isa su fekkente ne dubira wulli nañ al ihaabu der mu ne faqat tahura nañu xam ne laab na lan mooy wulli wulli mooy lan wulli ah ni uudey di def uudey nu ñuy def lan mooy wulli wulli mooy noonu naari def naari nit ñi def boo nee nu naari def rek loolu nit ñi duñu ko xam mone ñëbbugol ono wiyete ñëbbugol hoppugol mine min wiya ñëbbugol ɓeɓe wiya wulli mooy jël der bi def ko ci ndox def ci xorom def ci nepp nepp ak am na yeneen produit yi ñu ciy def yenn saa yi sax am ñuy def engrais ba pare weer ko ci naaj bi am na ñoo xam ne mën nañ kaa jël bàyyi ko ci mbànd moomu ba mu nëb ñu dindi kawar gi ba mu set ñooñu mooy yi ñuy jaay di ko def ay saak ak ay ceinture ak ay dàll waaw waaw bu fekkee yi ñuy jullee nag moom ñoom dañ ci duñ ko duñ ko bàyyi ba mu nëb parce que dañuy soxla kawar gi ci kaw kooku ay minutes lañ koy raxas ba mu set daal di koy tàllal def ci xoram def ci neb neb daal di koy daaj ci naaj bi su boobee ñu dindi ko xoos ko ba mu weex ñu kuppati ko après commencé di ci julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag daf ñoo jàngal ne der buñ ko defee noonu laab na nit mën na ko utiliser pour jaamu yàlla loolu mooy xadis bu njëkk ñaareelu xadis bi buñ demee ci arbaa mu ne ayuma ihaabin dubira bépp der bu nu wulli atem mooy laab na ñenn ñi sax ñi dugal yeneen der yi fii ci hadis bi la ñuy tënk mu ayuma ihaabin der bu nu mën a wulli rek der ba laab na ñetteelu hadis muy hadisu salama ibnul muhabbab radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dibaahu juludul mayit tahuruha sahahu ibnu hibban ñetteelu hadis danañ fekk yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na dibaahu juludul mayit wulli deru lu medd tuhuruha laabal na ko bu nu amoon lu medd ñu fees ko dindi der bi wulli ko der boobu ñu jëlee ci medd bi der bi laab na luy aata bi may hadis bi dibaahu juludul mayit tahuruha lépp lu dee bu nu wullee deram loolu laab na ñetteelu hadis mooy hadisu maymuna radiyallahu anha qalat marra annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi shaa يجرونها فقال هل لو لو فقال لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميت قال يطهرها الماء والقرط أخرجه أبو داود والنسائي soxna Maymuna ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na Maymuna nee na yonent bi dafa romb ci ab gàtt bu nuy diri bu faatu gàtt bi xar mi dafa dee ñu jàpp ci tànk yi di ko diri di ko sànni ji bi ñu rombee yonent bi ñooñu di ko diri bi ñu rombee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent ne law axastum ihaabaha lu leen tere woon jël der bi xaalu innaha may ñoo yoon li dafa dee dafa médd fa qaala yutahiruha almaau walqarat mu ne ndox ak neb neb dina ko laabal ak kon ñooñu bu ñu feesoon xar mi sànni yàpp bi jël der bi raxas koog ndog def ci nem neb kon da koy laabal kon ñeenti hadis yi mooy sunu darsu tey mu ne kon sax na ci ay hadis yu wér ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam luy wone ne maa yadullu ala anna jildal mayit yutahiruha biddibaag mata dubira tahura nee na kon sax na ci ay hadis yu wér ne yuy tegtale ne lépp loo xam ne médd la deram dina laab buñ ko wullee saa yuñ ko wullee rek der bi laab na mën ngaa utiliser der bi ci sa wàllu jaamu yàlla kon da nga ciy dégg ne der bi mën nga ko dullee mën nga ko mën nga cee def ndox pour jàpp est-ce que der mën nañ ci def ndox der nuñ ci defee ndox nuñ ci defee ndox der dafa mën a téye ndox ci jamono yu yàgg gars yi dañ koy ñëw ba mu mel ne benn mbuus dañ ci daan def ndox di tukkee ak moom day yàgg sax nag wala te day sedd di ko wékk ci kaw daaba bi ci gëléem gi wala wala wala wala léeg-léeg nga gis waa ji nga ne ko may ma ndox rek pourtant loolu yàggu fay jóge de ah remarque yi waaw voilà mu ngoog surtout ñooñu ak gëléem yeeg remarque yeeg ñi tukki ay distance souvent ci àll yi dañuy yor mbuus yooyu boobu bidong yi bëreegul bëreegul 10 litres yi kanda senangam yooyu bëreegul xëy na yooyu wàññi na ko mais bu njëkk ba te loolu ndox mi danaan set wicc ba pare nit ki mënta utiliser kon der su fekkee wulli nañ ko mën nga cee julli mën nga cee denc ndox pour jaamoo ko yàlla waaye mën nga koo jëfandikoo der yaa ngi nii tey ñuy def sint der yaa ngi nii ñuy def deru montre der yaa ngi nii ñuy def ay yére yenn saa yi ñu def ko ay tubéy yenn saa yi ñu def ko ay mbubu ay gilet yenn saa yi ñu def ko xuf xuf yenn saa yi ñu def ko dàll yenn saa yi ñu def ko loolu nag lan moo tax mu dagan nga mën koo sol mooy dañ kaa wulli suñ ko wulliwul woon kon du dagan moo tax yonent bi nee na mata dubira rek taxura saa yuñ ko wullee rek laab na moo tax mu ne la ñëw na ci hadis muslim hadis ibnu abbas mooy bi njëkk a wax kon qaala ahlul ilmi ay ahlul luga al ihaabu jildul mayit mu ne wulli deru lu dee soo déggee ñu ne la nag der bu ñu wulli dagan naa jëfandikoo mooy jildu maakulul laxmi mooy deru lépp loo xam ne dañuy lekk yàppam mu dagan loolu deram dagan na ci ñun ñu jëfandikoo ko buñ ne der buñ ko wullee laab na kon xanaa utiliser deru xaj dagan na ak deru mbaam xuux ah kon lu ñuy lekk yàppam lu dagan ci ñun ci sunu diine loolu day bu ñu jëlee deram wulli ko loolu laab na ci ñun fa ida axasa al insan al jildu min al mayit min baqara aw saat aw bair wa dabagahu tahura mu ne nit ab jullit bu jëlee deru nag wala deru gàtt wala deru wala deru wala deru wala deru mu ne su boobaa bu fekkente ne wulli nañ ko mu ne der ba laab na yustaamalu danañ ko jëfandikoo fil yaabisaat wal maaiaat jamian haza huwa sawaab su fekkee ne der boobu wulli nañ ko ba mu normal ba su boobaa mën nañ kaa jëfandikoo ci mbir yu waw yi wala yeneen yu demee noonu ma yi ma waxoon sànq ay solak ay takkak su boobaa dina dagan ndax wulli nañ ko li annaha usifat bi taxaara ndax léegi kat def nañ ci ay jumtukaay ba mu laab ñëw na ci beneen lafz mooy bi ñu waxoon deuxième bi ayuma ihabin dubiha der bu ñu mën a wulli rek faqad taxura gis ngeen hadisu maymuna moom tamit moo lay gën a tegtal ne kon ndeke médd buñ jëlee deram dagan na ndax hadisu Maymuna lan la wax ay nit romb nañ di diri médd di ko sànni ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen lu tere woon ngeen jël der bi hal lan axastum ihaabaha lu tax jëlu leen der bi ah gaa yi ne ko dafa dafa faatu mu ne leen bu ngeen ko wullee laab na ngeen jëfandikoo ko mu ne boo tënkee lii fal xaasilu annahu yajuuzu al intifa bi juludil mayit boo tënkee xadis yi da ngay gis ne ndeke mënees naa jëfandikoo deru mënees naa jëfandikoo deru médd mimma yu ukalu laxmahu ci lépp loo xam ne dañuy lekk yàppam waaye kañ lañ koy jëfandikoo baada dibaar ginnaaw buñ ko wullee fi kulli shay moo xam liñ ko wullee dafa tooy moo xam dafa wow su boobaa aussi mën nañ kaa jëfandikoo ci lu wow ci lu tooy ci soow ci ndox ak leneen lu dul loolu ndax léegi kat dagan na mënees na cee jaamu yàlla tabaraka wa taala fa kullu juludi najas baada al mawt waaye na ngeen jàpp ne lépp lu dee rek sa der medd na wala ah d'accord ngeen ci loolu wala d'accord leen lépp lu dee rek deram medd na ba bañ koy mun ko wulliwul rek yépp medd na waaye bu fekkoon ne am na lu fi dee lu ñuy lekk yàppam ñu jël ko récupérer der bi su boobaa wulli der bi su boobaa der bi laab na mënees na kaa jëfandikoo waaye dafa am sart beneen mooy na fekk loolu faatu dañuy lekk yàppam bu fekkee dañuy lekk yàppam tutahiru biddibaaxi dinañ ko laabale ci wulli yépp nag dagan na ba mu des ñaari rabu àll illa al kalb wal xinziir wal mutawallidu min ahadihima xaj ak mbaam xuux ak lu judd ci ñoom kooku moom wulli lu tax der balaat daganal nee na fal mu'tabar inda imaamu shafii nee na luñ jàng ci imaam shafii mu ne fa kullu xaywaan taahir fi xayaatihi ida maata taxura jilduhu biddibaaxi sawaun kaana maakulu laxwi am lam yukun imaamu shafii nee na bépp rabu àll fa kullu xaywaanin kaana tahiran bépp rabu àll boo xam ne dafa laaboon fi xayaati yi ci bi muy dund est-ce que xam ngeen ay ay rab yoo xam ne bi ñuy dund laab nañ xam ngeen ci benn ku ma indil benn ah kéwél laab na bi muy dund ak ban ah yéen xam leen rabu àll yi nga xam ne bi ñuy dund ni laab nañ la ilaha illallah bismillah imam Shafii nee na fa kullu lxaywaani kaana tahiran fi xayaatihi fa ida maata tahura jilduhu biddibaax bépp rab boo xam ne bi muy dund laab na amul kii indi na benn këwil ana beneen xar koo xar ak ban rab rek rab fa kulul xaywaan béy nag gëléem yooyu yëpp dañoo laab bi ñuy dund laab nañ bu nu deewee seen der buñ ko wullee laab na waaye bu fekkee xaj ak ak mbaam xuux su boobaa yooyu seen der daganul mu ne sawaawun kaana maakulu laxmi aw lam yakun moo xam day lekk dañuy lekk yàppam moo xam kenn du ko lekk fa kullu lxaywaan ida kaana najasul ayni fi hayaatihi fala yutahir jilduhu bi dibaax nee na bépp rab boo xamante ne bi muy dund laabut sobe la comme xaj ak yooyu bu dee wulli mënta laabal deram gis nga kon diine lislaam diine la joo xam ne ci lépp la topp nit ñi lan moo tax sëriñ bi dugal der ci buntu ndab indi hadis yi parce que dañuy jëriñ dañu koy jëriñi ko parce que tey la àddina neex rek mais démb am nañu doon jàpp der lan daan jàppe ba pare diine ji dëgg-dëgg ku koy jàngat di xool da nga xam ne diine ji teguwul ci xel kese kese ñu bàyyi nit ñi nit ñuy langar langar di dem lu nekk ci loo war a jëfandikoo ci sa dund loo war a def diine ji am na lum la ci jàngal sunu dars passé lan lañ jàngoon ci baabul aniya ah xaalis ak urus ndab ñu ne la ndab yëpp dagan na ba mu des ndabal wurus ak xaalis az-zahab wal fidda tey ñu ne la der yëpp dagan na ba mu des deru mbaam xuux ak deru xëj ah déedéet tudd xaalis kenn du ko lekkee palaatu xaalis kenn du ko lekkee montre xaalis kenn du ko takk jaaro lañ ci maye ak chaîne yooyu kenn du ko takk ak or si xaalis sax moo tane or ndax or moom mayuñ ci dara góor amma xaalis may nañ ci góor jaaro benn lii ci part ci benn wàll la ci wàll diine xool leen ci wàllu économique der lu muy def ci wàllu économique der lu muy def ah gis nga lii moo lay wan ne ñun suñu pays yi sax mënuñu liggéey ñun suñu dëkk yi loolu bañ a toog maa ngi wax li ñuy sànni ci voilà xar. loo xam ne dañ koy sànni.
loolu suñu pays yi sax organisé wuñ la lay jàngal ne africains yi duñ dem seen làmmiñ ñu bëri rek nekk fii gis nga ñaari semaine suba ki encore nii la ñuy demee xam nga barki dem ci làmb ji lañ nekkoon léegi làmb ji pare nañ ñu ngi ci Ablaye Wade suba nii rek ba kañ fuñ jëm xoolal li fiy dee xar der par jour xoolal tabaski bisu tabaski nii ngay rombee der yi ci mbedd yi ñuy nëpp ci mbalit yi léegi sax nit ñi commencé nañ ci yeewu tuuti di récupérer di ko jal ay borom saret jal ko après lu bon bon ñu am ci un million wala deux millions ay nit yoo xamante ne ñoo jël en charge def ko bërëb lañ ko yóbbu wax defar ko mu baax ñooñu après ñëwaat di ñu rey ay conteneur waa xoolal ñun c'est ça le problème xoolal même ñun sax duñ ko duñ duñ duñ ci duñ ci duñ ko di ut si ay der waaw gis nga parce que ñooñu xam nañ ne xam nga ki jël juróomi xale ku nekk mu jox ko 100000 ne ko demal nga utal ma ay der 100000 yaa ko moom booy yëg ay seen saret dem di yalwaani der wala di ñaan der ah imagineel tey bu julli di organiser woon loolu sax def ko baytul maal ñu ne mosquée bu nekk ñi fa jullee su ngeen paree imam bi ne leen indi leen fi seen der dañ ko soxla ñaata mosquée lañ ci war a tabax ñaata daara lañ war a tabax ci loolu ñaata dispensaire lañ ci war mais maal asaf jullit yi am na leen yàlla yërëm moo tax pour jullit yi avancer ci àdduna bi dina dina yéex trop trop trop trop trop parce que dafa mel ni ni dañoo liggéey seen xel yi bu daganoon a wax xoolal der rek der ay milliards yi milliards moo ciy jub salon cuir yi ngeen di defar yéen benn pot bu nga xam ne da ngeen ko war a def rek ci dégg 60 000 benn pot bi parce que xoolal der bi nga xam ne waa ji da koo jënde woon 100 francs wala 250 bi mu nekkee bu tooy ñu teg ko ci conteneur yóbbu ko Europe tubaab yi defar ko ba pare bi ñu ko indiwaatee fii menuisier bi war ko jënd def ko menuisier def ko ci ci ci ci ci canapé bi ñuy toog mu ne 60 000 la pot bi di jar ko mën naa day gën a seer boobu.
dégg mën a gën a seet imagine léegi pot boobu boo ci amee cinquante pot boo ci amee cent boo ci yoree dix conteneurs yoo xam ne pot kese la ko pot bu ci nekk soixante mille ñaata la te xoolal du liggéey du liggéey bu bëri du liggéey bu la sonal ay pexe la ak ay nosewu nose nose muy mal asaf danañ boobu ñu ngi poor yooyu yor ay oto gis nga ay oto ko da nga kii lu mu wax nee na ki ci liggéey port ay terme terme si waaw oto boobu ñu yor yor xaw ma ruus yooyu moom lay liggéey ci loolu la nekk ba am ay oto yooyu foo rek lay jaay foo kese oto yooyu te xool li fiy dee li fiy dee par jour fii xam ngeen fii moom dañoo bëgg lekk mais mala sax loolu tabaski rek tabaski sénégalais yi buñ bu ko gouvernement bi jëloon bu ko gëlo- gouvernement bi jëloon ubbi ci benn société loolu ñu naan xaw ma employé lan plan émergent xaw ma ne dañoo bëgg a utal jeunes yi liggéey loolu ñaata ndaw ñoo ci mën a liggéey tey waxuma la sax mu dem Europe mais xoolal sunu uude yi dañuy dem fi ci baaji naar yi di jënd tat te yooyu fii rek lañ koy jaay mais imagine li jóge Europe ñu ngi ñu koy jaayaat yooyu ñaata la da nga ci lu mu wax ne na 60 000 francs wala mu ëpp kon dëgg-dëgg dëkk bi nit ñi mën nañ kaa suqali sans xoolal yonent bi saa salaam ba mu waxee ba mu waxee ne même medd mi mën nañoo jël der bi kon koo kay ubbi nañu ay bunt kon moo lay wan ne lislaam diine la boo xam ne diine jaamu yàlla la waaye ak économique ba pare diine la joo xam ne li mu encouragé nit ñi daganal leen ko moo ëpp lu araam lu mu leen tere gis nga tey nit ñi ci ci araam loo yéen lu ñu wax ngeen ne araam na so kenn mënul dund non lislaam li mu ara li mu daganal moo ëpp lislaam lu mu araamal it baaxul lépp lu lislaam wax ne lii baaxul doo ci gis njëriñ baaxul soo ko toppee ba ci biir di nga xam ne lii baaxul ci lépp nag yëpp domaine yëpp jëlal fen loolu islaam ne fen baaxul nañ la fenal gis nga nañ la jëw yooyu rek ñaari yooyu doy na xoolal sàngara xoolal sàcc xoolal njaaloo xoolal yooyu lislaam ne baaxul yëpp da ngay gis ne boo ko toppee ba ci biir te société day détruire société moo tax pour société bi baax moo tax mu ne lii baaxul waaye xoole wàllu économique li lislaam daganal pour nit ñi suñu borom moo wax ci quran huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi lan la bàyyi jamian lépp lu nekk ci kaw suuf man yàlla maa leen ko defaral léegi nag bi mu ñu defaralee ba pare am ci loo xam ne day yàq teg si ñëw ne lii moom bàyyi leen ko te loolu sax nit ñi ñoo ko jëfandikoo jëfandikoo bu ñaaw bu ëpp bu bon mu jugi yàlla xam ne ne ñii dañ cee nar a yàqu mu ne bàyyi leen dañ ko def kon bu mu déggaatee suñu diine di ko càmbaraat di ko jàng te ñu gis ne dëgg dëgg dëgg dëgg diine la joo xam ne day su ko nit ñi comprendre doon tey kon ci wàllu jaamu yàlla ak économique kon raw nañ àdduna bi yëpp te lii ñun ñoo ci tardé de waaye saxaaba yi déggoon nañ ko parce que ñoom la yonent bi doon waxal te ba leen ko yonent bi waxee dégg nañ ko bàyyeetuñ ko mu dem parce que jamono yooyu àdduna bi métti na métti boo xam ne jël jumtukaay yooyu di ko utiliser da leen doon jëriñ ñoom rawatina nag tey fi mu toll ñoom luñ ci jëriñu ak ñun luñ ci jëriñu lan moo ëpp ngeen defe ne der tey ni ñuy jëfandikoo ci der ndax ñoom xamoon nañ lool ku demoon tey ba ni leen ne ñoom der mën nañ ko def fauteuil mën nañ ko def mën nañ ko def mën nañ ko def mën nañ ko def loo xalaat rek gaayam koy def tey der ah am na ci yoo xam ne sax bu ñu la nee lii der la da nga naan déedéet te danañ ko jël di ko ñaw comme ni ñuy ñëwee mbubb utiliser der bi ba ñaw ko am na fi ay canapé yoo xam ne cuir la ah waaw ah waaw cuir lépp cuir ñu ne lii der la yàpp la gars yi sax dañ naan yàpp la est-ce que mën naa ko lekk ma xiifee gars yi na waaw ñu jaay la ko allahu akbar kon sunu darsa tey mooy ñetti xadis ñeent xadis yuy jàngale ci baabul aaniya mooy buntu ndab xadis bu njëkk mooy xadisu ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na isa dubira al ihaabu faqad tahura wax naa leen chaque jour ma soññu leen ci téere bi nee naa leen téere bi lu ci gën a neex xadis dañoo gàtt ba pare am importance ba pare looy yi nga soxla la la indi li nga soxla ci sa wàllu dund moo tax ci muqaddima bi mu ne téere bi ku ko mokkal raw samaas gën leen dégg diine ndax li nga soxla ba pare dafa gàtt wala xadis bi ni mu gàttee ah isa dubira al ihaabu faqad tahura der buñ ko wullee mu ne laab na ñaareelu xadis mu ne ayuma ihaabin dubira faqad tahura ayuma ihaabin dubira bépp der bu nu mën a wulli ñetteel bi mu ne dibaaru juludul mayit tahuruha wulli deru lu medd mooy laabal na ko ñeenteel mooy xadisu maymuna mu ne marra nabi sallallahu alayhi wa sallam bi saatin yajuruna yonent bi romb na benn romb na yonent bi saa salaam benn xar mu faatu ñu koy sànni ji fa qaala mu ne law axastum ihaabaha am na beneen riwaaya bu mu ne xal lan axastum ihaabaha lu tax jëlu leen der bi qaalu innaha mayit ñu ne yonent bi li médd la fa qaala yutahiruha almaau walqarat mu ne leen ndox ak nepp nepp dina ko laabal gis nga yonent sallallahu alayhi wa sallam musul bàyyi luy jëril xeet bi lu dul orienté na leen ci loolu musul bàyyi dara romb lu dul orienté na xeet bi ci loolu bi mu leen ne lu tax jëlu leen der bi ñu ne ko dafa dee mënoon naa noppi déedéet du leen no du du noppi parce que daf leen bëgg a wax njëriñ ji mu ne leen dina ko laabal lan nepp nepp ak ndox noonu la defoon ci Abdullah il Madalaji bu mu demee géej ne ko dañuy dem bu ñuy dem géej dañuy yóbbaale ndox suñ ci jàppee dañuy mar dootuñu am ndox mënu naan léegi nu ñuy def mu ne leen xanaa xamu leen ndoxum géej ah dafa laab xam nga mënoon na yem foofu parce que ndox lañ ko waaye mu ne leen wal xillu maytata li fa dee sax dagan na ngeen lekk waa ji ndox lay laaj yonent bi xamal ko ndox laab na ba pare wax ko njëriñ gi nekk ci géej ne ko lépp lu ngeen fa jàpp dagan na xol bi xarmee romb ñu koy sànni ji mu ne leen lu tere woon ngeen jël der bi ñu ne ko dafa médd mu ne leen dina ko laabal ndox ak neb neb bu ngeen ko feesee ba pare ngeen jël der bi su ngeen ko fóotee ci ndox su ngeen paree ngeen weer ko def ci neb neb loolu dana ko laabal kon yonent bàyyi noonu dara ñun ñoo des danañ yàlla def ci ñun dégg ak topp loolu mooy sunu dar sa tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah